voilà c'est ça. waaw comme émission Rich-mon Djizz di émission bi daaneel nit ñi émission bi neex ci jamono émission bi dina stress ba tax na man mi koy présenté am na droit nuyu ku ma neex ba tax maa ngi nuyu tonton mag DV Diouf duma leen bàyyi TFM kaw ba suuf nuyu naa leen may leen émission bi ak clip bi xale yi di ñaan soxna si yow na nga def. maa ngi fi rek. an sa tal boo yow. <laughs> ngi nii rek. ana sa talboo. mi fi. ne ko ah. na ah. neex yow ban clip nga bëgg ma may ko. Ah? maa ngi koy may biige coro. ak ak Nogoy. ak Ibrahima Aan ak suñu mag yu nekk mbaaru cere yëpp ak Pape Aan Téer. may borom cere yëpp. ak Xaadim Aan waaw ñëpp lañ koy may. kon may ko képp kuy sima. ku ne marché rek. yow na nga def. maa ngi émission bi nu nu mu tudd mu tudd ba pare. émission bi. ji. nan. Rismon ji. léegi yow koo koy may yow ji bi émission bi Assane Ndiaye nga ñaan léegi Assane bi koo koy may. maa ngi koy may sama yaay ak papa. ak sama rakk yi. maa ngi koy may njëkk si marché bi ñëpp waaw. yow yow loo mën a defal lu neex fii nga taxaw. man. loo mën yow. demal demal yuusa. rës gin sa rëse gin cës gin cës gin cë rërërër foo koy sànni sëñ bi na nga def. émission bu bees la Rich mon djizz Assane lañ lay may koo ciy bégal sa jabar sa waa kër leen may leen ko. waaw maa ngi koy may suma yaay Ndeye Mbow di ko may suma papa Ali Mbow di may sama soxna Aïssa ak sama jabaru mag Fama Diop waaw nu mu tudd nga ne émission Rismo Rismo Rismon waaw maa leen koy may Rismon Gis moo koy daggate waaw Rismon sama xarit yëpp maa leen koy may mbaaru uude bépp Rismon Gis moo koy daggate mais dégg naa yaa ko rocci na ah, ko rek tim yaakaaroo ci mu ma mën a ko ba tey ñu àndoon ak yéen seen émission Rismon Djizz xale yooyu ñaan Assane Ndiaye kon duñ def lu dul tegee Assane Ndiaye bi côté parce que nee na sama yaay bàyyi lu ma xas kon ñu dem ci Assane Ndiaye sama yaay bàyyi lu ma xaas ñu leen di fàttali ñun ñoo nekkoon ak yéen tey fii ci TFM di leen présenté seen émission bu bees muy émission Rismon Djizz émission bi nag nee naa la bàyyiwul Samba wala Demba am wala ñàkk njool wala gàtt pata wala sew ruuj émission bi pour yéen ñëpp la parce que moment yi moment de stress la Sénégal dafa xaw a tàng ñu fiy ñaan jàmm ci biir émission Rich-mon Djizz waaw nuyu naa la pël bu rafet ndeysaan réyal ba doyal acca acca léegi soow mi pot ñaata la sow mi pot ñaata la pot juróom fukk est-ce que sow mu neex la sow na kese est-ce que pur na soow pur yow koo dëkkal sa kër kobatoogi Kabadooki nga dëkk. waaw Kabadooki yow koy nuyu biir Kabadooki. maa ngi dégg foofu rek ci gannaaw kër pël yi. ci gannaaw kër pël yi. waaw nuyul ma pël yi benn par benn. nuyul naa ah kii Alaaji Góori Alaaji Sow. ah xaritam Jibi Sow. mooy sama borom kër. ak xaritam. ak Alaaji Ndaraw. ak kii Boucar Ka. yow ay góor rek ngay nuyu sa xaritu jëkkër yi. doo nuyu jigéen ñi. waaw waaw nuyu sa wujj bi. ñoo ma indi fii. ñoo lay daane waaw waaw. ku lay maa ngi fii rek ci mbaar Kaolack mar mar sa santaral. léegi yow yow pël bu rafet yow koy nuyu yow. Eh, man maa ngi nuyu Koumba Demba Dieng. maa ngi mu ne egg maa ngi nuyu yëpp kobatoo fi la. maa ngi leen bëgg yàlla na ngeen yàggaw fii. yaa yaa barke borom Touba. ndeysaan. acca ban musique nga bëgg yow. man Baaba Maal la. waaw waaw Baaba Maal léegi waxal ba waxal boobu Maal Rismon Djiz. Baaba Maal Rismon Djiz. Rismon Djiz. Rismon Djiz. waxal Rismon Djiz. Koola Kale Paul Bale. bul xool Pël. waaw léegi wax Rismon Djiz ba pare Rismon Djiz. joxal kii joxal kii mu wax. joxuma ko tonton tonton Pël neen mu kooku moo nekkoon suñu mbokk yi nga xamante ne nee naa la émission bi bàyyiwul kenn maa ngi ci borom soow yi ñii ku leen dàq soow ci Kaolack amul nee naa ko koy nuyu mu ne ma waa Kabatoki